كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك هدوء للدمع والسكن مولاي صل وسلم دائما ابدا jërëjëf euh, mbokk yeeg euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, la 2STV di seen première chaine de télévision privée bu Sénégal ni ñu leen ko waxee nag ma wax leen ko amul dara loo xamante ni dana leen ump ci lu jëm ci wàllu diine rawatina nag ci fii ci Tivaouane gàmmu gi tax rek ñu ñëw defal leen fi seen émission spéciale kër gi te xam ngeen ni ku ne kër gi rek xam ci njaw ma ko du sàmb waaye itam ñu ànd ci itam def ci ay reportage yu am solo yoo xamante ni lépp dafa ñeel wàllu gàmmu gi kon li ñuy def rek mooy dañuy bàyyi njaw saatiwaawoon mu nuyoog mbokki téléspectateurs yi su ko defee ñu daal di xuus ci waxtaan wi. jërëjëf soxna Mbaye ñu ngi lay fay di la nuyu euh, di dalal ñëpp jàmm nag xam nga nag Tiwaawoon moom wax dëgg yàlla képp koo xam ni ñëw nga fi sunu gan nga ngir yàlla suñu maam Seydi El Hadj Malick mm. ndax dafay dëkk boo xam ni ki fi dëkk ak ki fi dëkkul ñoo fi bokk yam ndax suñu maam Seydi El Hadj Malick bi muy samp fii këram ci Tiwaawan kër gi kër yàlla la ko tudde woon nee na ko yàlla saf rekk ci kër gi nga bokk moo tax euh, nii nga gis dëkk bi mel ko nii waxam boobu moom lay moom la ci yàlla euh, def loxoom ba barke bi tey am ba nit ñi di jóge fu ne ci biir réew mi ak bitim réew ngir yàlla ak bokkam moom bis bi kon nag ñu ngi lay sant bu baax a baax Thiam di ñaan ñu di ko def ay téeméeri téeméeri gàmmu di ñaanal euh, boroom kër gi euh, suñu yaay soxna Marème ak euh, El Hadj Ibrahima Ndiaye borom kër gi mm. waaye nag ak ñi nga xam ne ñooñu safoo dinu seetaan mm. ndax soxna Mbaye nit ñi mënuñu leen a fay ndax fépp foo génn rek ñu sopp la ngir yàlla liggéey bu am solo bi ngay dem mm. kon nag yàlla na ci yàlla gën a gën la may xel mu leer mooy orienté nit ñi di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye nag di nuyu nag ki nga xam ni moom mooy fi toog toogaayu la Hadj malik tey mm. muy Serigne Babacar Sy Mansour di ko sargal di sargal nag Serigne Papa Malick Sy bu Serigne Babacar si ak euh, njabootu maam Seydil Hadj Malick yëpp ci tàmbali burdu ba ba démb ci dernier burdu bi xam nga ni soxna Mbaye lu metti la nga xëy yendoo recevoir mm-hmm. ay gan ñuy ñëw di ñëw ba ñu julli gee ba pare nga àndandoo nit ñi dem ca jàkka ja mm. nekkaat fa presque ba une heure du matin mm. wax dëgg yàlla loolu metti na mm. waaye nag seen barke maam jar na ko ak sumb yu rëy yi nga xam ne bàyyi na ko fi noonu la ñu koy sargale waaye nag mënuñu wax euh, nuyut ba bàyyi te nuyunu suñu sëriñ di suñu bunt ci kër Seydil Hadj Malick muy sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy njiitul al moustarchidine wal moustarchidaat moom itamit li ko war ci gàmmu gi yëpp ma nga ca ndax boo demee champ de tey wax dëgg yàlla ak yonentu bi daa xam ni organisation ba fa nekk maamam Seydil Hadj Mari mérité na ko soxna Mbaye. muy lu am solo waaye itam gàmm bu ñu ko waxee rek am lu bari loo xamante ni daf koy jàngal julliti yàlla yi. Mhm. lu bari loo xamante ni dafay delluwaat ci wàllu comportement ñu gis ne gàmm gi njaw ren thème bi ñu taamu. Mhm. Mm, euh, mooy jàmm. dëgg la te yaakaar naa ni euh, ñëw na ci heure am thème boobu. Mhm. yaakaar naa ni itam lépp loo xamante ni war nañu ko def wala war nañ ko waxtaanee fii février allah ci élection yi jàmm euh, ci lañ ko war a def euh, muy thème bi ndax li ko waral njaw du dara lu dul euh, jaboot jàmmay bokkam. dëgg te Sénégal jàmm rek moo fi xaj. Mhm. Sénégal jàmm rek lañ fi war a dox tey boo xoolee fii ci Tivaouane xàmmee woo fi géer gi xàmmee woo fi lawbe bi xàmmee woo fi tëgg fi. waaye tam xàmmee woo fi ki nga xamante ni mooy murit bi wala tiijaan bi wala xaadir bi wala laayeen bi mhm. ñoom ñëpp dañu booloo ngir lan jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu jëlee yaakaar naa ni temu jàmm boobu war naa mën a nekk teyit li ñu gis fii ci Tiwaawan wuy na turam bu baax a baax. dëgg na soxna Mbaye xam nga jàmm moom. amul purifié amu ko fa lu jëm. Mm-hmm. lu dul jàmm jàmm ko gën. dëgg kon nag ñu war a Serigne Cheikh Tidiane si daf daan wax ni jàmm dañu koy dox di ko wax. Mm-hmm. ba pare dañu koy woo. Mm-hmm. woo gi mooy dox ko wax ko. te fii ñu ko tànne nag waxtoom la. ndax dañu jëm ci jamono boo xam ni. dafay jamono fitna euh, maanaam li ma bëgg a wax dafay jamono yëngu-yëngu di jamono xol parce que jamono tànn la ku nekk dafa samp sa mbër pour bëgg mu daan foofa nag ku fay dem li ëpp ci lay li lay animé mooy sa xol kon bu fekkul am lu ko jiitu lay taayal ko ba tax loola woyof boo muytul boo demee rek mën naa indi leneen moo tax ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi mu gën fi sax message bi nga xam ne kilifa yi dinañ koy joxe ci gàmmu gi ñu ngi ñaan ñëpp ñu déglu ko te muy yóbbal ñu bañ ko déglu déglu folklore fette su ko rek après mu jeex mais li nga xam ni kilifa yi ñu ngi koy wax nañ ko déglu bu baax a baax ndax Sénégal li ñu ñëpp ñeeyee bokk na ci mooy jàmm ndax boo xoolee suñu ñaari alternance yi ñu am ci réew mi ca jamono ba muy am addina bi yëpp daje woon nañ Sénégal fi lay jaare waaye ñu am hauteur am mat gu euh, am mat gu mat sëg mm. goo xamee ni li ko gën a def ci ñun mooy sunu kilifa yi mm. parce que soxna Mbaye xam nga Sénégal lu la ciy neex muy muy politicien bi mm. di taalibe bi di ko mu doon euh, maanaam heure bu jëlee benn décision ba nar a jëfe xolom bu ko kilifa ne kilifaam ne bàyyil mu bàyyi ak koo doon mais loolu doy na sëkk jàmm tool yi li muy bëri bëri bëri amul benn homme politique bu ciy damm bant te bu sa kilifa décidé doo ko teg suuf loolu nag jar na sant yàlla kon patrimoine boobu wala flambeau flambeau boobu waruñu koo bàyyi mu néew doole wala muy daanu te incha allah du daanu kon daal jàmm jooju ñu ngi ci woo ñëpp soxna Mbaye tànne nañ ko ci waxtoo yàlla nañu ko yàlla defal euh, ci réew mi yëpp defal ñu ko ci àdduna bi yëpp rawatina ci Sénégal gii nga xamante ni wax dëgg yàlla fi la ñuy yendu yeewoo te it nag lii jàmm ji fi nekk rek moom moo ko mën a waral woote ëttu këru diine ni ko Modou Khoule waxee ci sunu benn élément dinañ ci ñëw ne am na dëkk yoo xamante ni boo fay woote lu mel nii euh, du sotti parce que booy lekk sax da ngay yër wala ngay euh, xool ba xam ndax ñi ngi la fay fekkam déet kon loolu jàmm ji ci senegal moom moo ko waral yàlla na ko yàlla gën a yokk waaye njaw mënuñu ñëw gàmmu Tiwaawan mukk te spécial kër gi la ñu wax waaye nag mënuñu ñëw gàmmu Tiwaawan mukk njaw hmm. te waxuñu ci njàngalem Seydi Hadji Malick la ndax jàmm ji daf ci bokk waaw xam sunu maam Seydi El Hadj maanaam bëgg jàmmam moo tax li mu réussir rek mu réussir mu réussir ko mm. parce que nitu stratégie la woon fexe na ba tubaab bi fépp fu mu masaan a def euh, maanaam cathédrale am mm-hmm. mu fexe ba jël jàkka teg ko ca wetam soppi ko école. Mm-hmm. boo demee Dakar gis nga euh, fi zawiyem bi nekk fi mu nekk ci këru dakaar la nekk mm-hmm. nga xam ne loolu stratégie la ndax bari na. mu muqaddam yoo xamante ni formé na leen foofu soo demee ndar boobu moo nekk capitalu occidentaux yi gis yi tamit fa mu fa am zawiyam ba ca ca Paris fam ko fa am wax naa la ci sunu émission bërki dem ca Dakar nii la suñu maam Seydi El Hadj Malick bi muy jóge fii di aji Màkka yéene moo doon dëkkaaleeg yonti yàlla Muhammad waaye ba mu demee foofa am na lu ko ni pëkk-pëkk ci nelaw ñi ko dellu ci réew ma nga jóge bu doon ñetti nit nga defar ko fa moo gën nga nekk fii ba muy tàggoog maamam rasulullahi dama ko ne maa ngi ñaan nga may ma fa barab bu may jaamoo yàlla ak barab boo xam ne dama fay tuur sama ñax pour lu ma sàmme sama ngoro ak sama diine ñaan naa la it barab ya ñuy jaamoo yàlla ci réew ma man Maodo ma ma ëppale ma bokk ci ñi ci ëppale waaye yaakaar naa ni loola kenn demu ci mu des ndax wax naa leen ne na sondage bi ñu mujj def en 2015 jàkka yi ci Sénégal yëpp 4741 jàkka la Seydil Hadji Malick am na ci 4703 kon nga xam ni la mu ca def rëy na bi ci dee si Seydil Hadj Malick dafa mas di bëgg jàmm mm-hmm. ndax bi nga xamee ni tubaab yi ñëw nañu ci jamono di ko laaj ci njaboot yi ñu ko dénk pour ñu dem militaire daf leen ni Babacar mii day bu ngeen ma ko laajee mën naa leen ko jox ak Sidi Ahmed ndax njëkk naa leen ci waaye ñii ma yor fii nag ay ay njabooti jàmbur lañu bu ma sañoon ngeen bàyyi leen ma mais la ca la ca yam mm-hmm. jël taawum Sidi Ahmed yóbbu ko mu des ca ca Salonique xam nga loolu ci la bëgg sa réew yem mhm. mu mel ni suñu maam Seydi El Hadj Malick jël na doomu boppam mu sol tenue senegal pour dem défendre euh, défendre couleuru réew ba bakkanam des si loolu war ngaa xam ne suñu maam Seydi El Hadj Malick bëgg jàmm moo ko yóbbu kon bu ay sëtam tànnee jàmm tudd ko gàmmo gi mhm. loolu ca la li wolof ne xandoor bu damee ci waar wàcc na tukkiwul dafa ñibbi kon nag loolu nekk na loo xamante lu am solo la bi ci desit moom mooy suñu maam Seydil Hadj Malick nit la koo xamante ni tamit tabarkal la ku yàlla joxoon xel la ku yàlla joxoon xel la ku yàlla joxoon ni tamit maandute la ku yàlla joxoon ni tamit pédagogie la dafa mënoon a jàngale mu mel ni nag loolu njaboot yi fi ñëw yëpp war na nañu déglu loolu suñu maam ju baax jooju suñu maam Seydil Hadj Malick ñu bàyyi xel ci jàngaleem bàyyi xel ci comportement bàyyi xel ci taxawaayam ci wàllu diine ndax ñi mu bokkal jamono yëpp bàyyi nañu ko xel ñi mu bokkal jamono yëpp tamit vraiment Euh, nangul nañ ko mandutem waaye ak xam-xamam boo xam ne nangu na ko partagé soxna Mbaye. muy lu am solo yaakaar naa ni gis ngeen ko tey nii rek la mën a demee euh, ci seen émission spéciale kër gi ñu defee ko fii euh, ci résidence bi nga xamante ni son excellence monsieur le président de la république moo ko def ci Tivaouane def ko ci ëtt këru diine yu bari yëpp moom tamit ñu koy ñaanal jàmm bu baax a baax ndax bu ñu amee place bu ñu mën a toog nii def suñu émission à l'aise dafa bokk ci liggéeyam kon ñu ngi ko ciy bu baax a baax waaye itam euh, ku xam Mbayang rek xam ne moom dafa nekk ab caameen boo xamante ne nangu na saare ni summi ko nga rawatina ci jamonoy gàmmu gi kon li ñuy def rek mooy dañuy daal di dem euh, ci euh, yenn ci kër. fekk ji jigéen ñi wàññi fa nekk naka la ñuy berndele gan yi seen gis-gis ci gàmmu waaye itam si seen gis-gis itam ci kër yi ñu nekk parce que wax naa leen ko nee leen kër goo fi dem tey ci Tiwaawan ñu defa samp waañ dañ fa fekk koo xamante ne samp nañ ko fa mu def fa fukki at ñaar fukki at yor waañ wa changé guñ ko ba léegi kon ñu dem seetaan di jigéen ñooñu naka la ñuy berndele gan ñi ci waañ wi rawatina ci jamonoy mag gàmmu gi ñu nekk.

ah ndax dafa naa ni euh, moo njëkk a tàntal nabi sallallahu taala alayhi wa boobu ba léegi te yokk waaye wàññeekuwul yàlla na gën a yokk jëm ca kanam yàlla nañ yàlla dolli sutura ak teraanga may ñu wér ak wér le ah yaakaar naa ne xel dooleeti naa dal maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay taxawaay bi rafet na ba ñuy sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sant suñuy waajur ñaari waajur ñu ngi leen di sant di sant ki nga xam ni moo meññi borom kër gi di alaaji sëriñ Sylla ba mu ko ba mu ko sant bu baax di sant sëñ tey ba mooy xalifa bi ci Sylla di sant maam alaaji Malick yàlla yal nañ yàlla fayal suñu maam jooju ah dafa naa ne moo njëkk a tàntal nabi sallallahu taala wa sallam boobu ba léegi te yokk waaye wàññeekuwul yàlla na gën a yokk jëm ca kanam yàlla nañ yàlla dolli sutura ak teraanga may ñu wér ak wérle ah yaakaar naa ne xel dooleeti naa dal yàlla nañ yàlla nangu te yàlla may ñu at bu jot ñu di ko fi teewee ci barke yonent bi te lu fi waaye ñaan yàlla na ko yàlla nangu ku fi dëgg sa tànk jàngoro boo am soxla boo am yàlla na ko yàlla saafaraal di sant borom kër gii nag di alaaji Modou Sylla dama koy ñaanal rek yàlla na ma ko yàlla fayal yàlla may ko mu gudd fan bu ànd ak wér gi yaram dundu cent yu àndal ak pare préparé gan ñi moom dañuy def rek la suñu euh, sëriñ bu baax bi daan wax rek al amin nee na bu gan ñi ñëwee dëkk yi nañu génn bàyyi gan ñi gan ñi tam ñu ngi leen di ñaan bu ngeen ñëwee lu ngeen bëgg rek na ngeen ko laaj lu ngeen laaj rek danañ ko joxe lu ngeen laaj danañ ko joxe su dee wàcc la lii la dinañ ko wàcc lu bis bi soxla nañ ko danañ ko jox bu genn gan ruslu bu genn gan doyadil lu waay bëgg boo ko laajee di nga ci jot ñuy dellu nag di santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla mayaat ñu fekk ko diwen yu baree baree bëri tey nag bésu gàmmu la loolu moo taxoon ñu ñëw di ziar si suñu kilifa moom la ñuy xoole alaaji Malick di ko xoole sëñ Babacar si di ko xoole soxna Umu Xayri si te moom it njiit lu baax la ndax yaatal na am laa biir na te tamit mu ñuy teg ci yoon te loolu moo ñu indi ci moom ñun amuñu puukare amuñu leneen te daf ñu koy tere kon nag li ñu ci aussi yàlla nañu ko yàlla yombalal ci barke sëñ Babacar Si yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp bu ñu ñëwee déwén yëpp yàlla nañu ko fi fekkaat. yaakaar naa ni kër euh, soxna Kala Mbaye fekk nañ ko ci biir ak daayira yeeg yooyu waaye jéem nañu wàcc ak moom ci li ñu ko xamee muy waañ wi di cosaan Adja Kala maa ngi lay nuyu sama xarit. waaw maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu jullit yëpp di nuyu waa 2 yëpp di sant yàlla subhanahu wa moom mi nu mayoon ñu fekke ko may na ñu fekkewaat ko yal nañ ko fekkewaat bu déwénee. nit lu mu nekk rek te mu yoonu yàlla daf cay sant yàlla ndax Seydi Hadji Malick mi ko sos bi mu koy def ñaar rek la woon moom maam rawaan ngom mënu ko jàngal xaaju kaw ma jàng xaaju suuf bi fajar di jot ñu def seen ñaan mu def ko benn at defaat ko. ni mag mu amul lu dul génn dëgg di ko wax ci benn guddi maa ngi ñaan bu jotatee fii ba góor saane ku ma mën a fekk si fekk si ma ni leen nag faaw ma yonent bi laa sosol a ah ku ci dugal leneen nag lu dul ni ma ko bëggee sa diggante la yàlla waaye dootu sa digganteek Maodo a ah mu nekk bëccëg boo xam ni nag bëccëg bu rafetlu ci ñun la bëccëg bu nu taamu la ndax bëccëgu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te ku nu bind nag rasulullaay moo tax bi ñaanal Seydi Hadji Malick mi ko defal yonent bi lépp lu ci yiw na ko yàlla fay fi mu tëdd. Adja Kala waañ wi defe naa ne macha allah filmé nañ ko ñaata mbana lañ fi teg. yii Adja mbana yi bari na ndax mbana yu ci ëpp par saaku ceeb lay sóor ndax dañ daan taal mbana yoo xam ni ñaar fukki kilo juróom lay doon. bi nu xoolee nag xam ni loolu day metti ñu dem Thiès commande fa ay mbana mbana bu ne 75000 mm. waaye saaku ceeb lay sóor. lin waaw cinquante kilos yi lay soot lin fi taal tey bari na ci bana te bu dul gàmmu itam diggante àjjuma ba samedi dimanche dañu koy taal mbana yooyu ndax gan yi ñëw ak ziyaar yi ñëw waaye lin fi taal tey moom kenn mënu koo wax nag. macha allah yal na yàlla xeeb dolli di waañu Serigne Babacar. kon waañ wi eh, du gàmmu rek lay mel nii mais lu dul gàmm itam eh, gis nañu ne itam ajaakala toujours ñu ci waañ waaw bu dul gàmm itam toujours ziar yaa ngi ñëw. ñii mm-hmm. nga gis ñu waali si fi daayira nixmati lan. Mm-hmm. sopp sëñ Babacar ndax xam nga ñiy togg si. dan dul mën a ñëw toujours di togg si. ndax bu ñoom dañuy ami gan. ñoom ñii nag di daayira nixmati bokk tund saafeen ak paloor. dëkk bu ne ñaar fukki daayira ak ñaar ne fa ñooy def bu gàmm gi jotee ñu ñëw toog fi jàppale nu ba gàmm gi jeex ñu ñibbi déguisement yi ngeen gis ñu sol ko Adja Zeynabou Doucouré at mu jot moo nu koy defal yal na ko gën a man ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ba tey rek euh, ñu des euh, ci wàllu waañ wi Euh, ban mbégte la kala di am ba tax waañ wi du ko bàyyeeg kenn saa yu ñëwee fekk ko ci waañ wi ci togg yi te mu mënoon a toog nag ñu di ko ziyaare di ko tarbiya. waaw ñun sunu yaay mësul xam ni sëñ Babacar ko jur. Mm. moom tarbiya la xam tarbiya boobu ci la nàmpatal njabootam gépp mm. sëñ Babacar mas naa am ay gan yu jóge France ñëw. bi mu toggee ba pare dañ koo laaj ñan nga jëli ñu toggal la mun leen sama doom soxna mu xayri si mm. ah, moom ci loolu lañ ko yar moom ci taalibe la yar njabootam ndax waañ wi 7 la fi daan génn ci suba waaye 7 heures ci ngoon la daan dollu néegam te daan na tëdd ba guddi ay gan am sëñ Babacar sëñ Abdou neen umu sa papa nee na ziar fanaan si na day jug togg ba ba gan ñay reer ba pare moom lool la yar boppam loolu la yar njabootam ku mu yorit ci loolu la la yar moom waañ la xam tarbiya la xam togg yàq rek la soxna mu xaay la xam bu siyaar ñëwee di téeméeri kaar daf naan la kaar bu ne ñaata nit la nga ni ko nangam mun ma kaar boobu nangami booli añ moo leen di doy kon moom loolu la yar njabootam loolu la xamal njabootam. li ma la doon wax it añu sëyni bu dukkure yaa ngi nii kon waaw xam nga kon seeda bañ na dem si yàlla si mu di ko yan njabootam ñu di ko indi. fatabar dukkure day solal ba noppi. wëlbati ko indi day indi ay añ di indi ay reer di séddale ay ndékki. bi ci des nag mënuma def ba mu jeex te ñaanaluma sama njaboot. sama njaboot gi ci àll bi ndax nee na nag bu lëg lekkee alum na ko gërëme coon jàppale nan ma seen borom këram nday asu borom këram Pape Wade maa ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal sant waa Amérique xale yi fa tabaarakallaahu sant ay bokkam sant Adja Binta Ndiaye sant nañ ñëpp waaye nag ñu ngi sant suñu première dame Marème fay Sall di ñaan élection yu ñëw yàlla nañ ko def ci jàmm mu jeex ci jàmm yàlla na yàlla tàppe xol jàmm ju nu woote ci gàmm gi yal na jàmm ji baawaan ci senegaal ba ëpp Sénégal di ñaanal 2STV bi seen taxawaay rafet na wax na Marème Ndiaye Alla Ndiaye ñu ngi leen di sant di ñaan yal na tele bi gën a yaatu yal na gën a yaatu ci àdduna bi yëpp di sant Soxna Mbaye 2STV daal kanam fii ñu nekk nag mooy waañu ki jigéen ji nga xamante ni yoonu Seydi Hadji Malick yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ci ba jeex tàkk muy euh, kër ajaratu Ndella Wade ñu ñëw nag euh, fii ci waañam fekk fi jigéen ju baax joo xamante ni war naa mën a sànnanteek ñun ay kàddu moom la ñuy jëkkee muy soxna Fatou Ndiogou li ñuy def rek mooy jox ko micro bi laaj ko naka lañu ñu waajalee gàmm gi ba toll ci nii tey ci bis bi ak euh, li nga xamante ni rek moo jëm ci wàllu bernde yi. Adja Mbayang ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. di nuyu Ndella wàdd di ko gërëm di ko sant peccum eh, peccum doom bu neexee ndey jàpp ca mbëgg ya ajaratu jaara wàdd mu ajar eh, ajaratu Fadio Basiru ak aadama wàdd mooy taaw ci néeg bi Fatou wàdd topp ci Rama topp ci Ndella topp ci bu topp ci yal na ko yàlla yërëm ah, usmaan wàdd topp ci Yacine wàdd di caat man mii am naa quarante cinq ci biir kër gi ma di fa liggéey ngeen ñëw ci gàmmu gi di togg bernde ak ñoom seen euh, doon ay ñam yoo xamante ne da ngeen koy jox nit ñi gàmmug ren gi ak thème bi ñu jël naka ngeen ko gisee. gàmmug ren bi ak. yaakaar naa ni gàmm ji moo waral ngeen def seen rouge noir ni ba mu baax. waaw dañoo njëkkee marron mauve teg ci rouge noir bi baa nga ne verte bee mooy tariixal islaam mooy gàmmu gi ko rek di ko gërëm nag. togg yi nag ñu di ko togg ba mu baax lool xale yi nga xam ne ñoo ma wër yi ñuy togg ba mu baax lool luñ leen wax ci suba ba ci ngoon moom la ñuy def équipe bii nag yal na yokk ca kaw ca kanam yaayam ne woon na ko yaa ngi sumb ndeela yaa ngi sumb loo xam ne bu ëllëgee yal na nga ko mën a sóorloo ndax di nga dem ba ñuy gàmmu moom gàmm bii nga sul den ca kaw te na mu ko waxee woon noonu la amee. dama ni kii suba dama yóbbu Ndeye la gendarmerie. mun ma nax la ma ne ko li muy def ëpp na. te lépp tuuru. démb fii barke El Hadj Malick dara manqué wul. Ndeye la daal gàcce ngaalaama na ko yàlla bàyyeeg ñëpp. Ndella Dabax moom la ñu ñëw ci waañam yaayu nen seen yaayu fifi ak euh, bisu ñaan euh, lépp di benn macha allah ak ndey mari Mboup mi nga xamante ni lantinoor laa ko tuddee ma ngi ca France ñu ngi koy nuyu ci gàmmu gi di wax ne rek euh, képp koo xamante ni soxla nga lekk wala soxla nga naan jarul ngay tumuranke euh, ndax daara jaa ngi fi te euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko tax a jóg. ñaari kër yi jàkkaarloo nag boo jéggee ne sa koñ ba foofu xam ne fa seetane bi nga xam ne glacière ba nekk fa boisson yaag ndox yu sedd yeeg yi def mis yu yaag aw sa yi lakk dibi aw sa yi yëpp tamit ñu ngi fi lépp rek di ko def si nga ne Seydina Mouhamed. Eh, yow lañu fekk fii ci waañu kër njool fuuta bu soxnaam su baax soxna Penda Dial eh, lan nga ci wax eh, nga yor waañu bu yàgg ba léegi. ñu sant yàlla jëm ci Seydina Muhammad di sant suñu ñaari waay sant suñu Babacar si suñu sëñ waañ yi ba mu fi dugg léegi léegi mu mat fukki te amul benn changement soxna Penda Dial mu nekk jé jéeg joo xam ne ne jéeg ju woo xam ne ne jéeg ju muñ la jéeg ju jëg dig euh, dig jëkkëram macha allah dara manqué wu lépp ngi ne gàññ na fukki at maa ngi fi su ma xoolee bët bu ñaaw ma xoolee dara yow lan la lay def ci ngay togg ñam di ko joxee ci bëccëgu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko jox jullit yàlla yi bëgg rek di togg ba mu neex ah. Ah, lépp doy nit ñi lekk ba suur ma ko joxe ka kanam gu leer xol bu laab fi mu ne lépp doy na ganaar yaa ngi ne gaañu xar yaa ngi ne gaañu gëlëm yaa ngi ne gaañu macha allah. jërëjëf ba léegi ñu ngi fii ci kër Ndiol Fouta suñ ko waxee Serigne euh, Mbaye si abdu euh, bu moom Abdou Aziz Sy Dabakh Ndiol Fouta ñëpp xam ko ñu ñëw fii ci waañam moom itamit euh, fekk fi soxna Ndeye Lam soxna Ndeye ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw tubaarkàlla soxna Mbaye maa ngi leen di dolloo ziar bi. di am mbégte lool nag ci weer wu sell wii ngeen xam ni dangeen ngeen a ñëw fekk ñu ci waañ wii tubaarkal la ñu jiite ko yàgg koo jiite lool ak soxna Penda Jam macha allah ku baax jël di njool Fuuta sëñ Ba yàbb moo laa jàpp mu doon koo xam ne nag benn yëpp def nañu ñoo ci dàq benn ndax nag lu baax lu ne fii lay dugg ndax ku ne fi nga am ngay fonk tubaarkal la di sant yàlla rek julli yonent bu tedd suñu réew mii yàlla avancement mu dem ca kanam a kanam li ma la ni nag tubaarkàlla guddi yonent bi tànki kanam la am amuloo ginnaaw te dañuy ñaan leen ma may leen di fas yéene koo ñaan suñu dëkk bii yàlla na sedd guyu ndoxum galaas yàlla doon avancement ci ñun ak ñëpp ak borom réew mi tubaarkàlla ak sëriñ yi nga xam ne tubaarkàlla ñoo ñoo fondation Tivaouane sant suñu wasiila bi suñu sëriñ muy sëñ Mbaye Sy Abdou yal na fi yàgg lool mu ànd ak wér barke yant yàlla Muhammad alayhi salaatu eh, di kontaan trop ci gone yii ngeen gis sama gannaaw ñuy soppe sëñ Mansour si bu alaaji Abdul alaaji Malick si xale yii ngeen gis nii jëre yi ñu sol nii ñoom ñoom ñooy daayira sëñ Mansour balxaw xaw mi fas yéene taxaw nekk ci guddi yanante bi di ci sonn bëccëg di ci sonn guddi di ci sonn saa su ne sëriñ bi lépp mate na ko lépp mate na ko xéwal yi mat na macha allah. maa ngi tudd ajaratu Thiamou Omar Tall Kaolack laa jóge ñëw màggal si fii ci kër Maodo saar dafay am loo xam ne su amee rek nga xam ne du asaar te nit ki lu mu xam li mu yaru ci lay gimmi Maodo Sarr dafa yaroo ci suufu papaam nga xam ne alaaji saar mi nga xam ne moo sam papa alaaji Ablaye Thiam ñoo daan rek régler tooli buleel ya tooli Cheikh Tidiane Sia di toggee ceeb yi Kaolack di ko yóbbu buleel ñu àndee ci noonu fasante ci kóllëre sëriñ Babacar si fas kóllëre googu Maodo Sarr kon bu juddoo foofu yaakaar naa ne bu ñëwee Tiwaawoon war na fee man def lu nit ñi gis ndax daf ko xam ci la juddu ñu tuddee ko alaaji ma sëriñ Maodo moo tax lu mu ci def rek war naa mën a nekk. fii danañ taal fukki mbana suba fukki mbana ngoor bés bu nekk dina rey ñaar na depuis ki demb ba léegi ku fàttewul démb rek yàlla du la fàtte. te dafa am ñoo xam ne ba léegi ñu ngi téye seen démb jooju ànd ba seen bàyyi àndoon ak bàyyu nit ñi ànd ba seen yaay yi àndoon ak yaayu nit ñi moom lañ téye ku ko ci téye it nag ci kanam rek nga jëm waaye doo dellu ginnaaw ko tabaarakallaa Maodo Sarr jël alal ju bari investir ko Tiwaawoon réccu ko itam nag te ni mu ko defee Tiwaawoon nii noonu la ko defee ca jaxaw Saalum nga mu dëkk day def ci yoonu yàlla day def ci yoonu développement waaye day dimbale doomu aadama yi kuy dimbale doomu aadama nag Modou Khoule yaakaar naa ni daje nañu ak euh, soxnaam aw buru këram soxna si ñu ngi leen nuyu. ñoo leen di fay leen di fay di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw fii ndax chaque année du ngeen nu wéetal da ngeen di ñëw lépp pour bëgg a teral nit ñi rek ndax guddi Mouhamed du lu ndaw ndax guddi Mouhamed boo koy créé nii chaque année da ngay gën a avancé moo waral tey ñuy gën avancé di def lii waaw Khoule nag ba bañu fi dara lu ne def na ko ba ba nga si ñu ngi ànd ak moom amul lu mu ci ñàkkul te pareeguñu sax waaw déedéet. gëm naa ne pareegu leen parce que par rapport deux ans avant bi ñu fi ñëwee woon gis nañu ren ji changement am na gën a yaatal euh, pour yëf yi gën a jàpp jàppandal yéen gan ñi ngeen di am ci ñaata nit lay toll ah ñun suñu gan suñu gan ñi amul limite ndax fii mooy Kër Mouhamed dan leen ko ba dañ koo tuddee Kër Mouhamed bon képp ku bokk ci xeetu Mouhamed rek fi nga jëm si waaw ñoo tax amul limite. kër gi day fees dell macha allah. wallaay njaboot gi nekk benn doomam yi kenn seetaanu ko ci macha allah ñoom ñëpp ñu def seen participation topp seen papa bu ñu bàyyi woon sax mu def lépp waaye lu ne ñu ngi koy def lu ne ñu koy def di topp seen tànk papa rek waaw ñu kontaan ci ñoom trop. Euh, ñëw naa ci sama naataango mu def zone bu baax moom itamit Adja Maretu Adja Marie il y a deux ans daje woon nañ ren ñu ñëwaat fii lépp ci gàmmu gi ci fii ci kër Modou Khoule noo koy dundee yow. Ah, maa ngi lay nuyu Adja di nuyu ñëpp ñi ñi nga àndal. gàmm gi ñu ngi koy dundee ci jàmm rek di ñaan yàlla gan ñi ñu ñëw di ñu fekk si yàlla nañu egg seeg jàmm yàlla fekk ci jàmm gàmm gi ñu ngi koy dundee nañ ko daan dundee rek benn rek togg du joxe ren nag dañ cee yokk lu garaaw ndax dañoo bëgg togg ci wedd yi pour gan gu romb amul xàjj amul seen ku ñëw lekk naan bëgguñu de kenn xiif bëgguñu kenn mat ñoo bëgg mais quarante mbana yombul de ngeen riig ko ren rey gileem rey nag lépp ngir bernde yi benn rek ñun benn rek lañu ak alaaji Modou ndax loolu moo jikkoom te lool la xam te mu ngi tuddee kër gi kër gi yonente bi te mu nekk guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun dañuy benn rek Adja su nuyu nañ la fay nañ la Adja Mbaye ñu ngi sant yàlla julli fan nga man maa nga jógee ba Mbacke Bawol nag ànd ak sama délégation rek ñëw gàmm waaw Mbacke laa jógee kon waa Mbacke tam dañuy gàmm si waaw Mbacke dañuy gàmm ndax lu baax du dox waaw waaw ndaxte Serigne Touba ak Alaaji Malick doom njëkk ak doomu Amadou Fari Mata moo jur Mati Mbàkke ak maam Ousmane mu jur Alaaji Malick Cerno Fari Mata dem Touba Mati Mbàkke ñëw fii kon ñu dañoo war a màgg dañoo war a gàmm gàmm gi yàlla bu mu doon suñu mujj gi gàmm yàlla nañ ko gàmm ay gàmm yi gàmm gàmm ci dara jëy Rasulullah mi tax a jóg te lépp lañ fi ñaan yàlla nañ ko yàlla nangu Aboubacar mooy xalifa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, jërëjëf euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, yaakaar naa ni kii nga xamante ni mooy Maodo Malick Sarr moom summi na ma waaye nag su ko neexee mu def ko ndax macha allah moom tam dem nañ ci waañam fekk fa ak njabootam ñu waxtaan ak moom ñoom ñu defal ñu ay bernde vraiment ñu koy gërëm bu baax a baax incha allah moom ci boppam dinañ ci ñëw ci deuxième partie parce que nag njaw waaw dëkk ña fa nekk ñoo koy defar. dëgg la. c'est bien boo ñu wax ci gàmmu mhm. wax ci euh, taxawaayu mag ñi te yaakaar naa ne taxawaayu mag ñi doon na loo xamante ni ñun jàng nañ ko maîtriser nañ ko ba noppi waaye nag ñii nga xamante ni ñoom dëkk ci dëkk bi war koo suqali dañ ci am solo mhm. nit dafay dellu cosaanam surtout jamonoy gàmmu te gis naa ne am na ñu bari ñoo xamante ni gàmmu gi jaral na leen ñu investir ay millions liggéeyee ko ay kër ngir ay nit di ñëw di fa dal pour bañ a manqué dara waaw loolu soxna Mbaye mën naa ci ñëw sax ci ay nit ñu limu ñoo xam ne tey maanaa Tiwaawoon kenn mënatu leen fee génne ndax ab dëkk boo fa amee buntu kër mm. génn la fa dootul yomb dëgg la mën nañ ci lim ko ku mel ni ki nga tudd léegi di Maodo Malick saar Maodo Malick Sarr di koo xamante ni kenn la ci xadara bi di taalibi Serigne Mouhamadul Mansour ndeysaan jënd kër gu rëy mm. tabax ko fii ci Tiwaawoon waaw séddee ko maam Seydi El malik Malick mm-hmm. bañ ko ba nee na këram googu bokkul ci li nga xam ne moom la jabato war a doon dëgg la Seydi El la ko may mm. mën naa ci dut ku mel ni Aziz Ndiaye. waaw xoolal Aziz Ndiaye li mu def ci ci Tiwaawoon. dëgg la euh, tabax fi kër gu rëy. jënd lu toll ci ñetti téeméeri nag séddale ko njabootu Seydil Hadj Malick ñuy dox di yem ci ay waañam ci dëkk bi. ci ay waañam. dëgg la loolu doon loo xam ne lu am solo la. Mm. ku mel ni euh, Pam Momar Gueye di mm. soppe Al Amin. mën naa ko ci boole ci doomu Tiwaawan yi moom i tamit formé benn groupe boo xamante ni gindi la leen tuddee. Serigne Abdoul Aziz Al Amin moo leen joxoon tur woowu ñoom itamit ñuy def liggéey bu am solo ci gàmmu gi boo demee ku mel ni Ibrahima gisee la même chose am fi kër Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Maodo Maodo Fall. Maodo Fall. ndeysaan moom tamit am fi kër goo xam ne tabaarakallah. Maodo mhm. Khoule noonu. ndeysaan Ousseynou Ndiaye la même chose bu ñu dee lim du ñu jeex ba ci alaaj Mour Sylla mhm. moom itamit tabaarakallah kër gu rëy gi mu fi def. ko te koo ci dem këram li muy taal ci mbana par bis. kenn du xam nu mu toll. gët la ñuy ku mel na ajaratu Ndella Wade. xoolal moom moom daanaka ñëpp. moom moo moo leen moo leen njëkk am kër ci waaw waañam wi tabaarkàlla lu ne mu jël ay gileem ak lépp mu indi ko mm. ajaratu seen bu dukk rek la même chose di jigéen ju man góor moom itam loolu boo gisee ni ju di ko fésal pour bëgg rek njabootu Seydi El Hadj gi gën a am exemple xam ni dëkk mm. bu nu mën a tudd rek ay nit a tax te dëkk fu man di tolli tamit ba nit ña di ko yaakaar nit ña di ca nim saa dem dafa fekk ña ko dëkkee ñoo am jobi defar ko waaye nag jaaraama njabootu maam Seydi El Hadj Malick ndax seen taxawaay rafet na ci seen biir xadaram maam dëgg dëgg nag li ñu man def nañu ko mooy képp ku ci am lu baax rek léegi tiwaan nga ko yéene xaaji Bokan Ndiaye ko xoolal ko mel ni Bokan Ndiaye tabarkàlla moom itamit taxawaayam ci xadara bi ah lu lu lu mu mën mu def ko bu ñu nee burdu bi teru na rek gedd na Ndakaaru daal ñibbisi tiwaan loolu nag soxna Mbaye dafa am solo. dañu gis eh, da tudd lu am solo léegi muy burdu. Eh, te ñu war cee ñëw laataa ñuy ñëw ci sunu élément bi nga xamante ne mooy doon sunu deuxième élément eh, ci lenn ci kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Tivaouane te gàmmu gi tax ñu bàyyi seen lépp samp fi ay kër ak yooyu dama dégg nga tudd burdu léegi. burdu doon lu am solo. ma dégg la sànq nga wax nga ne. man li ma gën a neex ci gàmmu jeex na muy burdu. muy burdu lu tax loolu taalibe Cheikh burdu gën koo neex ci ci ci gàmmu. waa xam nga burdu dafa doon lu am solo. soo soxna Mbaye burdu waxuma la nga teewee ko. mais boo ko seetaanee ci télévision rek mm. di nga xam ni lii am na am na sirru bu ne ci biir te du du hasard suñu maam Seydi El Hadj Malick tànn ko mm-hmm. muy fukki burdu mu di ko barkeeloo mm-hmm. ñun waati waaw nag burdu mooy sunu gàmm ndax dafay fekk nit ñi duñu bareegul dañuy yaakamtee reer ba jël suñu sajaada ak suñu kurus dem ca zawiya yi mm-hmm. pour lu burdu bi ci ngay naanee ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ñu di ko sante suñu maam Seydi El Hadj Malick dëgg dëgg nag ndax yóbbaale noonu géew Maodo boo gisee mbiram rek xam ne ni mu taaroo ci solo noonu la léppam selle noonu la léppam taaroo ma madiyax nekk loo xamante ni Mouhamadul Busiri moom moo ko taalif te bi mu koy def boobu dafa jagadi faju faju mu taawér mu dem janoog yonent bi di ko bàkk ci raw doom ba yonent bi génn faj ko loolu nag doon loo xame ni loo ama am solo la moo tax ñu di ko barkeeloo bu weeru gàmmu teroo ba ci fukkeel beeg ñaar ñu soog a daal daje ci jàkke yi nag daal di gàmmo joxe message bi nga xam ne moo jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu dem dundewaat ko ba déwénati ñu dellu si waat soxna Mbayang kon yaakaar naa ni burdu am na solo bu baax a baax a baax di ñaan rek ñi nga xamante ni ñoo koy jiite doon ñu sàkk ci ñoom buñ ñu fàtte ci ñaan benn yoon ndax ah, burdu ay ñaan la de. dëgg la mais dafa am ñoo xamante ni xalaatuñu ne ay ñaan la sax wala dara dañ ko jàppee ne waxtaan la ay woy la wala dara nga ñëwal ñu ci tuur tuuti ñaan la burdu. waaw burdu ki ko def dafa ci tàgg yonen wi mais am na neneen ñu ko mag ñi di ràbbe ba mu jariñ leneen. d'accord burdu secret la. d'accord waaw burdu moom. burdu moom secret la du caagi nag way yi rek fi tasu ko mais am na leneen mas naa dégg ci sëriñ Mouhamadou Moussa sama sëriñ mu ne bari na lu ko lu muy jëfandikoo ñaare ci jamono ci burdu lañ ko ko yoonee léeg-léeg rek mu gis maamam rek mu ne ko jël benn bëy sàngam ci burdu soo ko jàngee mu orienté la kon nga xam ni nekkul loo xam ne ay woy la rek ñu fetase ko mu dem am na leneen loo xam ne mi ngi ci biir mu mel ni nag Tiwaawoon googu moom la ñëpp wuy si fi mu ne mhm. kon li ñu fi yaakaar ci barkeeg leer ku fi ñëw rek yàlla na la ko yàlla jox soxna Mbaye allahumma amin mu mel ni que ni ma ko waxee sànq rek euh, tarixe yëpp a ngi fi gis naa fi sax jigéen joo xamante ni waa Mbàkke la ci benn waañ waaw mu wax ne sotti ceeg def ci la dara du ci muccal ndab li loolu dafay firndeel rek jàmm ji nga xamante ne am na ci diggante tarixe yi euh, ci diggante sénégalais waaye itam ci àdduna bi yëpp itam parce que gàmm du nit ñi Sénégal rek lay jóge day jóge feneen ak feneen ñëw def si ko kon jàmm jooju yàlla nañ ko suñu borom defar njaw li ñuy def mooy suñu deuxième élément ni ma la ko waxee rek dëkk ña fa nekk ñoo koy defar dëgg la te it nag Tiwaawan kenn ku ci nekk yaa ngi indi sa dara di ko ci def moo xam kër la moo xam say bernde la moo xam lu mu mënti doon lépp nag def ko ngir euh, euh, gan ñi nga xamante ni dañ fi ñëw lennat ci ñooñee ci doomu aadama yooyu nga xamante ne ay doomu Tiwaawan lañu ñooñu la ñuy dem fekk ji xool naka lañu dundee lii di gàmmu gi lan moo sabab social bi ñuy def waaye tam lenn ci jàngat itam ci Seydi Hadji Malick ay yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa mi nga xamante ni moo doon royukaayam lim jërëjëf mbokk yi ñu ngi fii ci kër koo xamante ni macha allah kenn du ko présenté fii ci tiwaawan ñu di ko wax sëriñ Maodo Sarr sëñ Maodo Sarr nag euh, doon koo xamante ni euh, liggéeyam macha allah boo sàggantu sax nit ñi duñ ko gaaw a xam ndax def te yàlla tax moo tax waaye nag comme ñun 2STV dañu sopp te ñu baax ñëpp dinañu dugg xool exemple nit ñi nga xamante ni ñu ngi fii ci Tivaouane ñu feeñal leen loolu moo ñu tax a teer si fii ci këram kon sëñ Maodo ñu ngi di la siyaar di la bal xàq di la ñaanal di kontaan ci yow ci li ma la wax ne la sa liggéey bu ma sañoon ñoon ak saak mu nga fay nekk mbéy ak caam du fa ne ndax lu baax ak lu neex kenn ku ne ay bokkam la ko la ko yéene loolu moo tax ma wax la loolu man ak alaaj maa ngi lan ma tudde euh, Yusufa Jóob bu jag saaw ak Astou Diop mi jur sama baay ñoo bokk mutu fa gay dikki benn alaaj maay lan ma tuddee kër gi laa yaakaar gannaaw yàlla ak yonent bi lii nu fiy defit dañ ko xeeb lépp lu nu man rek dafa ne ne bu dee fukk ñu man ko ci Sénégal juróom-ñaar yëpp Tiwaawan la war ndax lu nu am gannaaw yàlla ak bi ñoo na ko man ndax suuf bu sutante ko jël loolu la wolof di wax te ñu baax ñi fi nekk muy ñenut fi tombel muy El Hadj Abdou Aziz Sy ndax fekkiwuñ jamono sëñ Babacar El Hadj Mansour mais ñoom li ñu war a ñaan ci noonu ñaan nañ ko sëñ Mansour ñëw def noonu sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy ñëw def noonu sëñ Abdou Sinior ñëw def noonu xalifa bi ñëw def noonu sëñ Maodo mi nga xam ne mooy suñu wasila def noonu. kon tey lii lu nit ñi naw la waaye man lu ma xeb la ndax lépp loo ci def day dellusiwaat ci yow waxuma laa nag alaaji Maalik fi mu ko natt teg ci guddi yonent bi fab lépp jox ko yonent bi ne képp ku may jàppale ni jàppale ci guddi yonent bi kon nun danoo ànd ak alaaji Maalik di def ci guddi yonent bi waaye dafa lun sax alaaji Maalik danoo bëgg li mu bëgg lañ ko fekk si ànd ceeg moom bay ak loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi. ren ñu jël jàmm mhm. nga nekk ni euh, am lante nga ak ñoom am lante nga ak mhm. euh, euh, boobu lan lay sax. waaw thème boobu bi mu ko waxee dafa mel ne man la ko waxal ndax man mii nga gis ni ancien sénateur la def naa ko cinq ans wala bëti ku nekk conseil économique social environnemental cinq ans. mu jeex ñu renouveler at ma bu yàggul it may président chambre du commerce Kaffrine te ci réew mi laa juddoo ci laa liggéey lépp lu may askanale ne dama ko am te fekk amu ko ak bu ma ko amee lépp maa ngi ko amee ci réew mi kon réew boo ci juddoo yaru ci sa nga nekk ci lu toll nii rek tey nga dajale ko ci ay nit ñëpp di say bokk ak say rakk say mag ak say nijaay ak say papa boo sañoon jàmm rek mooy am jàmm benn thème tolluwu ne thème boo dis ci réew mi ñu di ko tudd rek jàmma ko laal bu jàmm amutoon dara doon man Tiwaawan damay dafa ne ku fi ñëw rek man nga war a dal ndax alaajumaa yi bëgg naa ko bëggin woo xam ne wi moom lañ ma tudde damay wax ne sama baay bu fekkoon ne tuddee na ma keneen ku du alaajumaa yi ragal naa dana am parce que bu ma ko tuddee rek di seetuma dara man sama xol ci boppam alaajumaa yi moo dama ko bëggal sama bopp yu tuddee ma ko bis bu set mu mbëggeel gi di gën a màgg sama xol moo tax bu ma jisee sax ku ci sonn wala ku ci def dara damay defa ne man nga koy def fi ne jàpp maa ngi jàpp ne sax yéen deewist yi ñii di def nii li ngeen def man ngeen ko defal waxuma sax sama kër bi li ngeen def ci yeneen kër si ak li ngeen di feeñal lépp damay def ne man ngeen koy defal moo da fay toujours loolu laa koy wax naa ko bu ma jiyee ngay wax rek sama yaram day daw damay jàpp ne alaaj maa ngi moo toog damay fàtte sama bopp di xool moo do loolu lay ma yàlla binde nag. Wolof Njaay dafay wax ni jàmm ci la lépp xaj thème boobu ñu wax jàmm nag euh, dañuy wax ni jàmm ci la lépp xaj ca Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar euh, jàmm jooju nag euh, Tiwaawan ak tarixa yi ci Sénégal dañ ci def lu am solo ndax bu ñu xoolee meluñu ni yeneen réew yi rek turux yi fi nekk moom la ndax damay wax ni Sénégal. Euh, kenn mënatu la ñëw pour occuper xelu nit ñi ak xolu nit ñi parce que turux yi occupé nañ ko ba pare. quant à loolu nag dafa amul ci yeneen réew moo tax lu ne di ko fa gis ci lu jëm ci affaire diine ca tegu fa mu war a tegu moo tax tariixa bu moo koy firi dëgg-dëgg daanaka jàmm rek lay woote kon euh, thème bi dafa am solo ci man damay wax ni jàmm mooy sookalu lépp ci la lépp mën a reposer développement ci la mën a reposer santé ci la mën a reposer. lépp lu man doon ci àdduna ci jàmm rek lu mën a ko sinon rek dara du fa mën taxaw kon euh, temu ren ji daanaka mooy àdduna ku mel ni sëriñ Mouhamadou Mansour si boroom daara ji dama judd rek man fekk ko ak sama papa mu am lante ak sama papa mu doon léppam nag man tam en 1990 la ma sama papa nuyoole ak sëñ Mansour wax ko ni ko dama ñaanal mën naa ni moom ci gémmiñam mooma njëkk a wax ni ci seko yu mag yi laa lay ñaanal boo fekk mu laaj ma fan ngay liggéeyee ma wax ko ko ca foofa taxul woon mu nekk seko bu mag euh, dafa mel ni sax ba ñu demee ba tey ñu may wooye président national des opérateurs privés secteur transporteurs ñëpp ñi nga xam ñi ngi yëngu ci gerte Sénégal ma jiite leen ñaan googee ginnaaw sama ñaari jur am na lu mu ci def kon nitu yàlla ay waxam du naax saay euh, sëriñ Abdou Aziz Al Amin it mu doon sama bàyyi man bañ teew ñëpp xam ko daana toog ci ay ndaje di ma tudd def na ko ubbite juma bu kër xaalis soxna joxe exemple te loolu lépp jublu ci dara lu dul encouragé ma bëgg ma gën a jaar ci yoon bi ma war a jaar kon ñoom amatuñ ay référence lañu ñu woon bi mu demee it euh, Serigne Babacar Sy Mansour toog fii moom tamit ñëpp xam mbiram ñu gën koo xam nag ci bàkk ko bàkkin woo xam ni ku ne moom nga bëgg mooy nit ku ñàkk caaxaan koo mën a wax ci Sénégal ni ko sëñ mu ni ko ñàkk nag defe naa bu demee ba amul benn ragal ko ci ngir ñàkk caaxaanam ak njabootam war nañ mën a tege ci yoon. man daal lu euh, slogan bi ma am damay ñaan suñu borom mu dimbali ma ba lépp lu ma am rek ma bokk ko ak jàmm yàlla yi ma laa juddoo fi laa jàngee fi euh, dama jàpp ni Sénégal mën a développé. Mm. et gox yi it ña fa dëkk. ñoo mën a développer seen ay gox. ñoo mën a développer seen dëkk. président Macky Sall mënul wàcc fenn fu nekk mu dem fa def fa dara. ñun ñi nga xam ni ay ressortissants dëkk yi lañu. ñi ngi fi juddoo nekk fi di liggéey nañ fi nañ fi investir. suñ ko defee rek gox yëpp dana dox. waaye bu ñu jëlee emploi bi wala jël euh, infrastructure déplacé ko ci dëkk yu mag yi. ba ilaa yomi diini suñu dëkk yi du ma sa développé. moo tax man je préfère man li may def ma def ko teewal bi ma dëkk. Euh, loolu moo tax. lépp li nga xam ni mooy suma bureau yi mooy fi ma dëkk mooy lépp Tivaouane Tivaouane laay fanaan ñoom laay yeewoo ndool ñoom laay gisandoo. ñu gis ne Modou Khoule lépp lu muy def fi sabilillahi la koy def lan moo tax nga bëgg jàmm nit ñi. waaw xam nga jàmm kilo la lépp am bu jàmm am woon ñun dañu mën a taxaw fii di togg añ ñu xalaat lenn am na réew yoo xam boo fa demee sooy lekk da nga yër wala ngay daw di làqatu waaye Sénégal jàmm fi am dañu ñaan yàlla jàmm jooju sax baax a baax a baax ñu ngi jëm nii ci ay élection Eh, coow yaa ngi bëri wax jàng bëri mais réew mi yëpp benn lañu ñoo bokk ndey bokk bay te yàlla décidé na ki fi toog kii toog moom dafiy toog ba yàlla dogal mu dem bu war a dem kenn mënu ko fi téye ki war a ñëw it war a ñëw kenn mënu ko téye kon na nit ñëpp xam loolu politiciens yi yëpp nañ bokk xam loolu ñu bokk ndey da waxante rafet ñaan yàlla liggéey la boo xam mënu ñàkk mooy élection ñu jongante la ñu jongante ko jàmm génn jàmm que le meilleur gagne ñi xam ne réew mi ñoo ko bokk te mun ñu ko xar ñaar te dañuy ñaan yàlla yàlla def ci réew mi jàmm ak salaam ba nga xëy ne kenn bañam di ñaan yàlla gàmm gi ñu ñuy dugg itam yàlla na nekk zéro accident yàlla na nekk zéro accident kenn bañ a accidenté kenn bañ a xoosu kenn bañ jënd ordonnance ci gàmm gi ña ngi koy ñaan ci barke Serigne Babacar Sy ñu ngi ñaan loolu baax a baax Adja Mbengue daal suñu xol dafa seddu gi kontaan nañ ci yéen yëf yi daal ngi ñoo ko bokk liñ ci am ci yàlla nañ ko yàlla boole yàgg nañ di ci yëngatu sax waaye fii ñu toog Seydi Mouhamadou Mansour yàlla na yàlla yokk dafa ñëw fii ci kër gi ne ma dinaa la wax secret ci guddi yonent sallallahu alayhi wasallam guddi yonent bi loo ci def yàlla dina la jox leen lopp loolu moo tax ñu démarroon ci ay ñaari nag dem nañu ba ci ay juróom-benn fukki nag léegi di ko sant yàlla mu gën a yokk baax a baax a baax kër gi nag dañ ko def kër goo xam këru dal la kër Cheikh Seydi Hadji Malick kër goo xamante ne nii dañ koo def kër goo xam ne ku ñëw rek amul ay daayira da ngay lekk ba sa gàmm jot nga ñaan yàlla jaamu yàlla def say naafila delluwaat ñu fas yéene nag suba def spécial togg ñeent fukki mbana ci mbedd mi sarwi ko ay nit ñu ngi koy war a démarrer nag incha allah midi ba 4 heures daañu sarwi ay sarwi ay reer ku ko dégg na ñëw ku ko dégg boo ko dégg ki fenn ñëwal. gratuit lañ ko jox daañu leen jox ay añ jox nañ mais xam nañ ne buñ ci defee benn yàlla fay ñu bu suba ëpp loolu te ñam nañ ko ñamaat ko ñamaat ko moo tax ñu ñemee tax loolu di ko jël luñ ci def boo léegi daañu amaat leen lu ëpp loolu ci kàttanu yàlla. maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci gàmmu gi nga xam ne bis gënu koo màgg ci àddina bis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu daje di nettali ay baax baaxam di ko ñaanal ndax ñaan du doy ndax yonent bi sax boo ko tuddee ñaanal ko kon ñaan war na bépp jullit bépp jaam ndegam yonent bi gën ñëpp tax ñu bind ñëpp moom la ñu naan waxuma laaj ñeneen njëriñ yi ci nekk nag dafa bari dinaa ci lim rek tuuti lu ci feeñ mooy dajalook mbokk yi ndax radiyallahu taala anhu alaaji Malick bi mu gàmmoo ci Tiwaawoon ñaan yàlla jullit di ko fekk di màggal yonent bi jël fukki fan yoo xam ne dañuy def bur di tagg yonent bi di tagg yonent bi di tagg bi ba bis bu mujj bi ñu noppalu gàmm màggal judd bi ñu def ay xéewal lu ne gàtt bu nañu rey ko ñaw nañu def ko tur yàlla bu nañu tidd ko salaatu bu ne jëpp fi kaamil yu ne wàcc fi loolu dafay njëriñal senegal gépp di njëriñal Afrique gépp di njëriñ njëriñal àddina moo leneen li ci am nag mooy kër gu ne say nit dañ lay ñëwal say nit na boo ko déggee say mbokk jaret dañuy ñëw wuy si la ndax tey kër gi ñu nekk tey di kër sëñ Babacar si Abdoul Aziz soxnaam su yaru si ne fi di soxna Penda Jal day mbokkum ñépp looloo ñu fi indi ñun tey tiyaabu jooju kenn xamul fi mu ne ñii ñi gëj a gis ñëpp ci suñuy mbokk dañuy daje dañ naan ah dañuy ñëw jàppale ci soxna Penda ndax mu ngi ci wanagu sëñ Mbay si looloo day dundal mbokk te loolu yooyu yëpp ci baax baax yi mag gi seetlu woon ba def ko ci la bokk bu buñ ne temu ren bir euh, jàmm la daf may delloo si gannaaw ci maam sëñ Abdou Aziz ndax bu réew mi masaan toll fii day ñaan joxey sarax wax lu baax fu ñu ne fii dangereux na mu xuus fa ndax ñëpp ko rus mag mu yaru ñëpp a lay mag mu am xam-xam te sopp yàlla ñëpp a lay rus université gi gën a dangereux sëñ Abdou dafa daan xuus nu mu ko neexee xale yëpp simmi ku mu fekkoon nga xaaj sayet too dóor da ngay tëral ku foroon xeer da ngay tëral boo ko gisee ñëw nuyu ko jox ko ñaari loxo kon te mu jàmm boobu buñ ko indee ñëwaat nañ ci njàngaleem sëñ Abdou للمدائمان waaw kay euh, njaw gis nañu jàngatu nit ñu baax ñooñu ni ma leen ko waxee rek euh, ki nga xamante ni mooy Serigne Maodo Sarr mhm. ni ñu ko waxee moo du Modou moo du Fall ñoom ñëpp gis nañu li nga xamante ni euh, moom moo leen ñuluk ba tax ñu dellu siwaat seen ëttub maam bi gën fay jëmmal li ñuy def waaye tam woo seeni i mbokk mhm. mu mel ni que njaw ci li ñuy jeexale rek mooy gàmmu dafa am leneen lu muy def muy boole. dëgg la nga dem ci ab dal dinga nga fa fekk ab euh, ñu jóge Mauritanie. ñii jóge Waalo. ñii jóge dakaar ñii jóge Bawol ñoom ñëpp ñu dajaloo di famille boo xamante ni at at la ñuy gisante te waral mooy gàmm. dëgg la loolu itam noo koy gisee. waaw xam nga euh, ci cadre jàmm bi ñuy waxtaanee ba léegi loolu ci la dugg ndax suñu maam Seydi xaj ma Malick unité boobu la ci bëggoon xam nga am na jamono bi ñuy gàmmo nit ñi daaw nu dajaloo nii. mais Seydi la xaaj Malick moom moo mujj nit ñëpp nañuy ñëw Tiwaawan di ko fi dese pour unité boobu di ci am gëj a gise beeg bi ci nekkeek ak jaamu yàlla bi ci nekk ak xol yu booloo yi ci nekk yéenante jàmm bi ci nekk booloo ñaan ndax mbooloo lu nu mënul amul ndax baa Babacar Si mu tànn ba daf daan wax ni sang lañ booloo wat weer waaw kon nag bu ñu ñëwee dajaloo ñu baal ma xam nga soxna Mbaye waajal gàmmo geeg yooyu moo tax nu soj waaye ñu ngi koy jéglu ñi ñuy seetaan mu mel ni mbooloo moomu nga xamee ni moom la ëllëg suñu ma Seydi Hadj Malick sàkk woon jublu ci rek bari waayu mbooloo mi mais gisee beeg yéenante jàmm ak gis Mbaye mu gis ma ñu xamante ci fasante ci kóllëre njariñ mën ciy génn loolu jar na lu ne kon nag loolu doon na loo xamee ni lu ama am solo la ndax soxna Mbaye mag ñi def ñu dara ci hasard lii nga xam ne moom la ñu def ni soxna mbay xoolal gàmmu gi li li fi ay nit dëkk yoon woo xam ni yow rek yaa ci daan jaar kenn du la xatal léegi boo bëggee dem sa kër da ngay booxante tam mbedd moo jaar ci Tiwaawan noonu la mel te nit ñi li leen di indi kenn woowu leen war ngaa xam ne loolu kon li ko def du caaxaan képp ku mu doon fi mu ne loo am rek yéene nga ko def ci bis bi ngir yàlla ak yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te suñu maam Seydil Hadj Malick yàlla na nu ko yàlla fayal ndax wanunu boppam. déedéet loolu ndax boppam la def wanu yàlla ak yonent bi. Seydi Hadji Malick amul bés. déedéet. Seydi Hadji Malick mënoo ubbi ab euh, euh, livre wala dara mu fay wax boppam moom mooy. kan ak ay kiraamam mosu ko def. lu tax loolu. noo xam bu mu xam ni bi ñu ko nee nguur a ngi nii. alal a ngi nii rafetaay a ngi nii. koom mu mu mën a doon mi ngi nii daf ko faa bàyyi rek tànn ubudiya mm-hmm. ubudiya soxna Mbaye ak mooy nekk jaamu yàlla rek bu mm-hmm. suñu borom nangu ak jaamam mm-hmm. suñu maam Seydi El Hadj Malick loolu rek la mas a tànn am na benn waay bu masa ñëw ñëw ni ko sëriñ bi damaa ñëw ngir sopp la rek mu ne ko nan bokk sopp yàlla mu ne ko damaa ñëwoon pour def la royuwaay mu ne ko ki ñu la war a royloo du man yàlla lañ la war a royloo mu ne ko damaa bëggoon nga wax ma sa bopp mu ne ko man da mënuma laa wax sama bopp bu sama njaboot màggee ci ngay soog a xam man a kan la ndax man sama liggéeyu bàyyi laa man sama liggéey bala moo feeñ sama njaboot màgg waaye ba Seydi Aboubacar ne tëll ñu gis koog bonekaarem boobu nga xam ni la ma la waxoon fa mu ko daaj ren fa la koy daaj déwoon maam Cheikhul xaw mi ñëm ko wengal nga xam ni moom i tamit fa tabaarakallaahu doo xam foo koy mën a jaar nga gis suñu maam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ñëw nga xam ne ku ko soppul ci àdduna amul nga gis suñu maam Cheikh Al Hadj Habib ñëw ci stratégie ba nangoo liggéey ak discrétion ba di box borom xam-xam biir moom suñu maam euh, Habib sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoum nee na ñu bari dañu defe ne Senghor moo ma dugal ci politique mais maam Habib moo ko dugal ci parti Senghor ngir rek ni moo xamee woon àdduna ak bëgg a teel a ñaax njabootam mu def ay découverte pour àdduna bañ ko jaaxal kooku moom mooy suñu maam Seydi El Hadj Malick euh, tànn rek nëbb boppam war ñu yàlla ak yonent parce que soxna Mbaye ñoom seen mission defar nit lañ leen sant nit da koy jàpp defar ko doo ko gëlëmal doo ko fàttaloo boppam doo ko fàtteloo ay waajuram mais li ngay def ci moom mooy def ko nit koo xamante ni mën na nekk responsable ba ëllëg fu mu taxaw mën a présente mën a représenter réewam Seydina Omar dañ ko masala ñu ko kilifa gu yar njabootam nuñ koy xamee mu ni kilifa day yar njabootam boo boo gisee njaboot bi di di ko jaawale kilifa gi dama lay laaj rek mu xadd mu Seydil Hadji Malick boo mën a gis sa xel dem ci Maodo ndax yiwam ndax sañseem ndax bëggam lu baaxam ndax wax ndànk ndax lu mu am man koo bokk ak yàlla yi te amul kenn koo gis ku Maodo yar ku Maodo yar nga man koo yab ndax Serigne Cheikh laa déggoon ne mag mi amul Serigne Cheikh nee mag mi amul dépense te am fayda nee na ku koy dab ni ko amul dépense nee na amoo dépense waaye nga am am nga fayda loolu nag moom moo am solo ñu gën a roy suñu kilifa yi mm. gën a bàyyi xel ci seen message mm. bi nga xamante ne dañ ko joxe ndax loolu moo jig réew mi soxna Baye. moo jig réew mi te loolu la waa Tiwaawan taxawee te yaakaar naa ni ku ñëw fii rek Tiwaawan gis li fi nekk rek di nga xam ni bu ñu góor góorloo ñaan sunu borom bu baax a baax a baax rek euh, yàlla mën na laa defal sutura njaw dama lay bàyyi nga tàggoo ak mbokki téléspectateurs yi rek su ko defee ñoo ko joxante rendez-vous waat incha allahu taala beneen jamono euh, ca 2STV yi waaye beneen jamono itam ci fii ci Tiwaawan ndax xam naa ni euh, lii duñ ko mës a bàyyi daal dëgg la incha allah xanaa di la ñaanal nag waaye di ñaanal tamit Euh, xale yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun rawatina Asmalik rawatina jibi ak ñoom demb ñi nekk ci caméra bi parce que ñun la ñuy gis naam waaye ñoom liggéey bi métti yëpp ñoo koy def ñoo ñu ngi leen di gërëm di leen san di ñaan yàlla li ñu bëgg ci seen barke maam yàlla na leen ko yàlla defal di gërëm it képp koo xam ni jóge nga ci dëkk ñëw Tiwaawan gi li nga fi yaakaar yàlla na la ko yàlla defal ci barke maam Seydi El Hadj Mal en tout cas kontaan nañu trop ñu ngi nuyu nag waa Tiwaawan yëpp yëpp yëpp yëpp ndax yéen bu ngeen fi ñëwee rek ñun ngeen ñëwal. dëgg la jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ndiaw Macodou Samb sa Tivaouane nga xamante ni moom lay bokkal émission kër gi tey ñu bokk spécial kër gi fii ci Tivaouane ma koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla jàmm fi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant gërëm ñoom Alas Malick euh, ñoom Lay Mbeng ca montage ba euh, ñoom Demba ak Demba Thiam sama chauffeur bi macha allah jóge Tëngéej waaye gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy soxna Daba Diaw moo plateau ba sax waaye tàngaay weeg OFI bi ak liggéey bi moo tax ma pooraat ko kon maa ngi koy gërëm bu baax a baax ngeen mën koo am ci 77 363 21 21 mbokk yi jàmm ak jàmm ba suba incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu fi amaanillah jaa ngeen jëf. كيف تنكره بل بعدما شهد به عليك مدل الدمع والسفر العلم دائما أبدا على